chers amis internautes bien le bonjour ñu dikk ak yéen euh, ci seen journal VIP ci li nga xam ne moo gën a fës ci xibaaru diggu bëccëg gi ñu koy dooree nag ak kii di Khalifa Sall moom nag mu taxaw seetlu am ap question bo xam ne posé na ko mooy que ni lan la ñu def pour mettre fin à ce drame euh, bu ko waxee nag mooy suite ak pirogue yi nga xam moo ngi suux ci fan yi ñu génn ay ndaw yu bëri ñu di ay ndaw réew mi ñàkk ci li nga xam ne mooy seen bakken Khalifa Sall nag moom mi ngi wax ne état dañ cee war a jël ay mesures gindi ci ay châtiment pour ñi nga xam ne ñoo yi nga xam ne ñooy yóbbu gone yooyu ci gaal yooyu noonu ñu teg leen ay daan yoo xam ne mucc na ay ba dina servir leçon ñeneen ñoo xam ne bëgg nañ ci dugg waaye aussi muy wax que ni euh, gone yi nga xam ne dañuy dem ci gaal yi day wane rek ne jeunesse bi amatuñu repère xamatuñu fu ñu jëm et que gisatuñu seen bopp fii ci Sénégal ndax euh, am fi liggéey métti na

Euh, depuis quelques semaines, euh, les vagues déversent sur nos rivages des dizaines de corps de nos jeunes compatriotes candidats à l'immigration clandestine. je m'incline devant la mémoire des victimes et que présente présente li nga sincères condoléances à ñi famille victimes parallèlement je interpelle l'état du Sénégal sur l'urgence de trouver des solutions concrètes pour mettre fin à ce drame humain. Mais wax aussi que ni pour ma part je m'engage à construire avec les Sénégalais et les Sénégalaises un avenir plus juste et plus humain qui garantit des opportunités et un espoir chez nous Je euh, ngi cay wax tamit da campagne Je rek na wax ni dina créer un emploi ngir jeunes yi mën a toog ci réew mi liggéey fi ndax euh, ci dëkk bi fi et que il est temps état jël ay mesures ndax euh, ni ñuy def nii métti na ba di ci ñàkk li nga xam ne moo di seeni bakken te mën naa ñàkk ba tey ñu desandi ci euh, immigration clandestine bi ndax euh, gal ba nga xamné mo moo ci fee ca Wakaam ki nga xamné nak euh, modi Doudou ndjay di vice-président wu keewu wakam mom nak indi na ci ay précisions gannaaw bako suñu naataango wa l'Observateur tendre micro mom mi nga waxné nak information bi nga xamné moy mooy circuler depuis demb ci site internet yi euh média yu bari relaté ko que ne information bi demeewul noonu ndaxte. lii di gaalu garde côte euh, yu mari nationale yi ñoom nag ñoo percuté lii di gaal googu mu far càng ci li nga xam ne moo di ab xeer mari haute bi fekk leen fa ñi nga xam ne nag euh, ñu jot a tëmb ñi mënoon euh, nager ñoo ci jot a rëcc waaye nga xam ne mënuñu woon fay nag ñoo ci mujj ñàkk lii di seen bakken ndax gannaaw ñi nga xam ne ñoo di ay rescapé sax am na ci koo xam ne ma nga dëkk fee ca Touba moom mi ngi wax ne joxe na lu tolloog 500000.

suite au décès d'une quinzaine de Sénégalais dans le naufrage d'une pirogue au large de Dakar, Antoine Diom promet un châtiment historique aux organisateurs de ce voyage périlleux mangay am lu ko metti lol te di jale ñi nga xamne ñoo ci jotee ñak seen bakken seeni famille waye nak mi ngi xam ne ni kii di Antoine Félix Diome ak ñi nga xamne ñoo di membre du gouvernement bi dinañ ci jël ay matukaay ba ñi nga xamne nak euh, ñoy euh, les organisateurs de ces voyages périlleux dinañ ci kuñ ci jàpp dinañ la tek ay daan yo xamne ne dina servir de leçon ak keneen ko xamne bëgg na ci dugg ñu dem fofu ne ci kër Ousmane Sonko mom nak gannaaw ba nga xamne barrière takk ndeer ya fa newoon depuis ci fan yee ñu jóge nga xam ne leve nañ nag barrière depuis week-end bi ñu jóge moom nag gis nañ ne ñu bëri ci waa Pastef ah, ña fay ñëw ndax ne nañ kër Ousmane Sonko mooy seen kaaba et fa la ñuy jël si li nga xam ne moo di seen ndoxu sam sam gis nañ ne nag dem geeg dikk gi bëri na lool jamono jii fi nga xam ne moo di ca kër góor gi fee ca kër Ousmane Sonko Ousmane Sonko di titre livre boobu nga xam ne Madiambal Diagne génnee nous ñu génn nga xam ne retracer les coulisses de l'histoire li nga xam ne moo ca jot a xew pour que ñi nga xam ne comprendre une histoire ba na mu demee woon ñu gën a am des idées beaucoup plus claires ndax nag euh, gis nañ ne bëri na ay bakken yu ci rot bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne Sénégal am nañ ko durant deux ans ndiki ni Adji Sarr Ousmane Sonko ak salon Suite Beauté bi moom nag pour gën cee indi ay leeral ci boppu sénégalais yi moo tax mu bind livre boobu noole ndax nag mi ngi wax ni l'écriture reste la meilleure méthode pour transcender le temps dans la transmission de savoir et de raconter l'histoire à la future génération qui dit Madiambal Diagne moom japonais jàpp pas ne dafa taxaw taxawaayu di historien moo mu bind livre googu pour am mon mu je a sais jeunesse bi nga xam ne ñoo di ci pour ñu mën comprendre l'histoire di histoire Adji Sarr ak Ousmane Sonko nan la deme.

ci réew mi gannaaw nag ba mu jotee taw fan yi fële ci Touba Dakar ak yeneen i région gannaaw nag ay changement yoo xam ne jot nañ ko seetlu yoo xam ne def nañ ko nekk ni démb ci lundi bi 24 euh, juillet au sein de la police nationale entre permutation ak li nga xam ne nag moo di graduation liste ba nag jot naa génn euh, mu di un vent de changement à la police nationale on peut dire qui di le commissaire divisionnaire Mustapha Diouf mom nak jóge na fee nga xamné ne Matam dadi atterrir fee ci centrale bu Saint-Louis ki nga xamné modi le commissaire principal Ibrahim Dieng qui était jusque-là chef de la division régionale des renseignements généraux de Dakar mom nak euh, désormais yobou nañ ko fee nga xamné modi centrale bu Tambacounda le commissaire principal Daouda Bodjan mom tamit tout le commissaire euh, yobou nañ de Rufisque mom nak yobou nañ ko fi ni ne nii fee ca le commissaire Lamarane Diallo mi nga xam nak yagul won ma nga won ci tetu commissariat bu Louga ba mom nak il devient le commissaire de Rufisque qui di Seyna Niang jëlee nañ ko Bel Air yóbbu nañ ko fe nga xam ne di tourisme kii di Gnima di ancienne commissaire de Bombay mom nek na commissaire central de Louga ki nga xamné modi moo di Aïssatou euh, nga xamné mo moo commissaire wu fi nga xamné modi Sali mom nak moom nañ ko fimné ni ne nii Bakary Malouine Faye membre suis le chef de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratique membre euh, suis assimilé nañ ko commissariat de Sali. Ismaïla Goudjabi, je suis adjoint du commissaire de la sûreté urbaine suis affecté à la direction de la police judiciaire PG Alioune Ndiaye moom nommé nañ ko commissaire spécial de Kër Ayib ki nga xam ne Balaba, di Balla euh, def nañ ko chef de la sûreté urbaine Lamine Cissé affecté nañ ko fee centrale euh, pour la répression du trafic illicite de stupéfiants Mohamed Lamine Diop moom nommé nañ ko fee ca centrale bu Géejawaay mën nañu wax changement yi ñu opéré euh, bëri na ci fee ca wu police nationale et que ñu bëri jëlee nañ leen poste yi yóbbu leen feneen ñii nag gradué nañ ñeneen ñi dañoo jote permutation li mo fi jotoon roussandi ci xibaaru digu bëccëg bi ñu leen di jox dig daje fi wak euh, demain à la même heure d'ici là restez scotché. là où vous recevez les informations justes et vraies portez-vous bien